fàttali ne maanaam l'heure est grave te ñu jugee ñu nekk si benn situation bu délicate boo xam ne avec la propagation rapide du virus ñu fàttali ne euh, dernièrement célébré nañ fi fête de la tabaski muy occasion boo xam ne ni euh, rassemblement la entre les familles maanaam est-ce que mën nañ xaaraat retour couvre-feu waaw ci question boobu moom dama bëgg a euh, utiliser sama sama la nga xam ne mooy sama kilifa loolu la waxoon la dernière fois si bi nga ko invité si benn plateau mooy. Aucune mesure n'est de trop. pour préserver la santé des population ou aucune mesure n'est de trop pour préserver la santé des Sénégalais tey xeex bi lu mu laaj rek dañuy def loolu je pense que loolu ministre de la santé et de l'action sociale wax na ko euh, son excellence monsieur Macky Sall le chef de l'État aussi euh, ñëwaat na si wax na ko feebar bi état bu mu toll rek euh, dañuy def la nga xam ne moom la moom la moom la laaj ci wàllu prévention ci wàllu aar Sénégalais yi may fàttali que ni sànq wax nañ ko virus delta mi ngi fi di di di euh, di en tout cas euh, nekk euh, la nga xam ne lu am solo la ci di indi troisième vague bi mais dafa fekk mu am mu ñëw si benn période ba nga xam ne période bu particulière la période bu particulière pourquoi foofu damay donner trois éléments premier élément bi mooy période bu particulière parce que bu muy ñëw gisoon nañ benn lassitude donc lassitude mooy nit ñi épidémie bi c'est depuis plus d'une année nit ñi nga wax leen bu leen dem rassemblement bu leen def déplacement tënku leen tëju leen et cetera ko tegee dina am période bu nga xam ne day euh, day day euh, du yomba mu respecter euh, mesures yooyu donc gis na observé nañ benn relagement ba nga xam ne boo am solo la ñuy bàyyi woon nañ takk masque yi commencé waat joxal loxo yi commencé waat rassemblement yi gis nañ ko ñun ñëpp donc ça c'est le premier élément le deuxième élément mooy virus delta boobu su ñëwee gis nañ ne euh, vaccin yi nga xam ne am na ci àdduna bi mën na euh, protéger askan bi si virus delta boobu euh, mais tolluwul ñu woon fa nga xam ne nit ñi ñi ngi vacciné wu correctement donc loolu aussi lu am solo la mais troisième élément aussi mooy bien que vaccin yi commencé nañ ko vaccination bi ñàkk bi commencé nañ ko depuis le 23 février 2021 mais am na ñi nga xam ne ci Sénégal yi dañu yaakaaroon ne suñu vacciné woo rek jeex na alors que vaccination bi day permettre tey ñu wàññi kaa grave yi weñ tax ñu wàññi décès yi donc bien que vacciné woo da war a continuer di topp gest barrières yi mesures barrières yi donc c'est tout un ensemble qui devrait euh, permettre euh, Sénégalais yi ñu euh, ñu ñu ñu moytu ñu moytu euh, euh, virus boobu donc loolu dafa jaadu tey ñu ñu ñu taxaw ci thème maintenant ci tabaski bi ku nekk dégg na jëwriñ bu nga xam ne moom lañ dénk wàllu wér-gu-yaram mu ne Sénégalais yi ñaax leen woo leen euh, yee leen ci wàllu euh, mbas mi te jox leen leen tegtal wala digal na leen pour que Sénégalais bu nekk mu toog tey fa nga xam ne foofu nga dëkk nga tabaskee fa mais gis nañ ne malgré ça am na ay euh, déplacement yu ñu observé maintenant ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi toog di di di xool d'ici une semaine deux semaines euh, euh, pandémie bi nu muy évoluer épidémie bi nu muy évoluer si réew mi tey épicentre bi mi ngi dakaar soo jëlee téeméeri cas juróom benn fukki ak juróom-ñett mi ngi si dakaar mais gis nañ ne sànq rek présenté nañ ko am na région yoo xam ne cas yaa ngi commencé yokku donc notamment région de Kaolack et cetera mën euh, xool nañ xaar fii une semaine deux semaines euh, le temps ñu observer maintenant euh, comme ni mu ko waxee rek. mu mel ni sa kër nga am benn fuite d'eau donc soo amee fuite sa kër soo woowee kii plombier bi wala. en tout cas kii ñëw defar ko du ñëw rek fomp fomp plancher bi mooy fomp suuf si euh, su ñëwee fomp suuf si te euh, fiddo bi kenn defaru ko da ngay di fomp donc ci wàllu euh, faj bi si wàllu épidémie bi non seulement da nga war a fomp plancher bi mais da nga wax arrêté fiddo bi donc fomp plancher bi mooy lan mooy lan ñu teel gis malade yi teel leen faj teel saafara arrêté fit bi mooy Euh, ñu wàññi rassemblement yi respecter gestes barrières yi euh, takk masque bi systématiquement surtout dans certains endroits fermés dans certains endroits confinés mais aussi euh, nañ si ñëw si kanam certainement wàllu ñàkk bi tey gis nañ ne ñàkk bi mooy aar ci feebar bi mooy aar surtout si cas grave yi mooy tax ñu wàññi dese yi donc su tolloo période ba nga xam ne autorités yi war nañ jël décision si wàllu mesure restrictive kenn du ko duñ ko naatable benn yoon dañ ko jël daal juste dans l'intérêt euh, des populations euh, sénégalaises maintenant pour jël mesure restrictive euh, dafa am élément yu bëri dafa am n paramètre tey ñun ci wàllu wér-gu-yaram dañ jox autorités yi ay information mais bul fàttali que ni dañu war a trouver équilibre entre les différents secteurs tey ñu ngi si secteur de la santé mais économie bi dafa war a continuer boole boobu la ñuy laal sax parce que dafa laal actualité mooy gis nga événement yi fi ñu fi ñu fi annulé ak combat de lutte yi Euh, yenn événement nga xam ne amoon na grand théâtre naka nga jàngatee décision gouverneur mais dañ koy rafetlu bu baax dañ koy rafetlu bu baax di ko féliciter di ko di ko di ko di ko encourager di reprendre rek fait euh, jamono jee ñi ngi woon ci benn ci terrain bi ci benn séance de vaccination donc euh, maire je pense euh, ministre bi maire Médina ak ak gouverneur bi effectivement ñi ngi fa mais damay reprendre benn benn kàddu bu nga xam ne maire Médina wax na ko tey dañu toll foo xam ne suñu jël décision yi dañuy analyser paramètres yëpp ah, après doo jël décision pour kii content wala kii maître da ngay jël décision pour préserver tout un peuple tout le peuple sénégalais donc am solo Euh, très très très très très lucide te dafa am leen lu am solo c'est bien euh, activités yi baax na économie bi baax na et mais tey nit su amee ñaari soxla dafa fekk nga wér donc balaa nga naan naam ne fa donc euh, wér moo jiitu après leen li ciy tegu tegu si mais effectivement suñu dafee effort ñu ñëpp je pense que mbas mi na dellu ginnaaw ñàkk yi ñëwaat na donc nañ góorgóorlu ñu ñëpp pour pour une période bien définie pour que ñu xeex mbas mi mu génn suñu réew